Euh, ñu ci bari jamono ji démissionné nañ ci poste ci mel ni Ousmane Sonko Serigne Gueye Diop ñoom ñëpp euh, démissionné nañ waaye ñoom euh, conseil des bi nga xam ne dañ doon faral di ko gis mercredi dañ koy tey ci mardi ji dañ koy def dix heures jotee. loolu yëpp signe la symbole la buy wane ni ñoom ñi ngi réitéré même ba léegi nii li nga xam ne ay promesses yoo xamante ni bokkoon na ci diggoon nañ ko askan wi ci projet bi nga xam ne tey. moom lañ porté woon jaay ko askan wi. projet boobu nag xalifa a chaque fois damay faral di référé wu koo xam ne waxi démbam ak jëfi tayam méngoo nañ jàppal gor la. Mhm. waaye koo xam ne waxi démbam ak jëfi tayam euh, waroon nañ waccal wolof day wax ni nag euh, cin bu naree neex su baxee xeeñ ki nga xam ne dafa falu premier jéego yi mu séqi daanaka defagul sax weer sax matagul ci biñ ne génn nañ ci élection yi léegi mu wan la fi jéego yoo xam ne day dal xel kooku dalay wan ni xam na urgence yi koy xaar ni mu la ko waxee woon bi muy campagne te amagul mu bari waa lu ñu miinoon mooy kii campagne te amagul dalay wax lu neex di la dig lu neex di la wan programme boo xam ne moo dàq sax boo xam ne bu ñu ko réaliser mooy gën a yaay raw États-Unis di la discours discours yoo xam ne da nga naan kii de bu faloo sama réew mi yëpp naat. Mm. mais gis nga bu jour bi mu jëlee élection yi ca ngoon nga boo ko woowee dootoo ko jot tàmbali laa woon beneen jikko bu defee passation de service bu commencé jël fonction doxal tuuti nga tàmbalee gis beneen profil beneen doxalin yeneen i xar kanam. yeneen composition yoo xamante nii moom lay composé ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko daan dar nga xam ne dootoo si jot dootoo am accès ci moom ñii nag loolu dalu ni ñu tàmbalee def ak jéego yu njëkk a séqi dafa dal xel parce que ba ñuy ut te amaguñu lañ la wax woowuñu la ci neexal dañ laa woo ci kaay li ñu bokk kaay ñu liggéey lii la ma jaral ma sóobu ci bu doon sama intérêt bopp mënoon naa toog sama kër ak sama njaboot ak sama alal as tuut la ma am. mais loolu yëpp fekku leen ci ñu ñëw soobu ngir bokk ci ñuy defar réew mi loolu nag mami xalifa euh, su jëlee fonction depassation de service woote conseil des ministres tey. dalay leer ni am na loo xamante ne la mu waxoon urgence yu ñuy xaar. kon moom xam na urgence yi yan lañ te noppi nañ pour futteeku ñoom song urgence yooyu ngir jublu ci. kon loolu nag day réitéré waat kàddu ah. président de la république Bassirou Diomaye bi nga xam ne moom balaa yàgg newoon na askan wi dinañ tàmbalee yëg loo xamante ne nii dinañ xam ne changement am na ci seen dundin muy am loo xam ne dina ci refléter ci pouvoir d'achat yi mu ci mën di demee donte nag lépp mënul xëy tendoo mm-hmm. mais nag conseil des ministres àllarba lañ ko miinoon àllarba day dajeeg julli kon won nañu ni PM bu bees bi ñu am mm-hmm. rigueur bi mu doon demee ñu xamee woon ko ko ba tey dañu ci moom au contraire dafay parce que ci dénoncer. Mm-hmm. di sensibiliser population bi ak yé bu ñu ennemi ñi ci pouvoir bi def ko ennemi nekk au pouvoir. Mm-hmm. mais pas dafa noppé ils pour bay fallu askan wi. Mm-hmm. ngir liggéeyal kon yi mu dal na xel voilà justement mo ngi comme nous ko niñ euh, réunion bu conseil des ministres